still going down with the best of hip-hop and school, school, as usual, as promised. It's Going Down, le nouveau son, deuxième édition, on était là l'année dernière, de retour pour euh, une nouvelle édition LNS2 avec euh, Vibe Radio 102.3 FM, euh, et euh, de la deuxième CV, originalement vôtre. Voilà, donc ce soir, une nouvelle finale de poule avec moi-même, Talrek et bien sûr, Sister. Sister Gayam. <laughs> tey du waxtu bi. na laa tudd sister. bébé <laughs> chou it mel na ñu tàcc ko bu baax a baax wala boog. Salam alaikum, salam alaikum. Euh, chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver encore une fois hein, ci émission le nouveau son une compétition de rap et de chant affaire bu nar a affaire bu nar a neex ay xale yu am talent ay xale yu mën woy macha allah ñoo xamante ne bu ñu rek dagay am chair de poule. ba tax na nag euh, Tall euh, defe dañuy rek annoncé ñi nga ne fi jaaroon semaine passée. Mhm. muy suñu ñaari gagnant kenn ki muy Big Demba tojoon fi. Waouh, je gagné la catégorie rap pour la euh, finale de poule 1, la mhm. semaine passée, je suis sorti de la demi-finale. Je suis sorti de la demi-finale, je suis sorti de la demi-finale. Euh, ak keneen ki ki nga xamante ni moo gagné catégorie chant mooy Baye Xeus de la Casamance effectivement ak boobu graaw ndeysaan xale bu mën way xale bu am talent waaye defe naa ne tey aussi dina tàng dina nekh. ndax gisaat naa fi yeneen xale yoo xamante ne am nañ talent te mën nañu way macha allah ba tax na dañuy commencé rek li nga xamante ne moom mooy euh, bi dañ leen di woo annoncé leen ah euh, kenn ki ñu njëkk woo moom mooy catégorie rap bi la ñuy njëkkee ah mm-hmm. évidemment donc tal, le premier candidat c'est qui sans plus tarder il nous vient de Camp Baye Fall Mr Snake wala

Saba bat. Nous sommes Et euh, Ferta. Last but not least, Mr. Ferta. Aïcha, Tal nga deuxième euh, finale de poule. Euh, mhm. Snake qui nous vient de Cambaye Fall. qui mhm. était là l'année dernière qui fait son retour son comeback. Dave on de track Wadjam Gunle, la. du yomb saf saf ak rap. Ça <laughs> sabaa mon moom le Massar le la jugee. macha allah euh, moom représenté féminine <laughs> Ferta qui nous vient de Futa aussi qui a aussi un autre côté international mais on a dinañ ko découvrir Tay. ah ouais duñ def lu gars ay bagages tey am na ay bagages yu ma gis. yes sir <laughs> duñ def euh, waaw nuyu suñu. waaw suñu ñi nga xam ne waa vraiment. tey nag euh, membre du jury bi defe naa ne tey jekk nañu macha allah. Ah. Ah, sama macha allah bi foog ma koy indi. <laughs> ayca <laughs> ayca. ba tax na nag ñuy nuyu ki nga xamante ne moom mooy Jibi Dabrens. Jibi daal voilà Jibi nuyu nañ la. maa ngi

salaamaaleykum maa leen di nuyu yéen ñëpp di leen remercier ci invitation bi nii je suis très fier nekk membre du jury pour concours bu mel nii. Mhm. parce que c'est important que ay jeunes yi nga xam ne ngi dugg ci musique bi ñu am ñu leen mën pousse. pour mhm. mettre leen ci yoon bi déjà quoi. Mhm. donc je suis très content d'être là aujourd'hui voilà quoi di leen nuyu yéen ñëpp. jaajëf waay Rex si moom nag chaque accompagner. moom mooy le superviseur. ayca le juste milieu. ayca bismillah. bon maa ngi saluer xam nga auditeurs auditrices téléspectateurs yi xam nga ñuy suivre 2S TV auditeur Vibe Radio di xamal ni collaboration Vibe la ak 2S di si kontaan si lépp pour jëmale hip hop Sénégal kanam la. lépp pour jëmale musique Sénégal kanam. di si kontaan si le fait que ma toog sama compatriotes yi samay xam nga samay senior ñi nga xam ñoo ma formé. même génération bi dafa bëri man man maa ngi. ji bi bàyyi li ngeen def yow tamit. waxtaan leen waxtaan leen grand la dafa yàgg rek. escadron dëgg la waaw. honneur la quoi xam nga le mooy partager ak ñoom plateau bi en plus di béggee xam nga ñi nga xam ne suñu candidat ñoo xam ni ça n'a pas été facile. Mhm. comprendre dañu génn ci sélection bu yàgg pendant trois cent personnes ñu génne leen. ci kon chapeau à ñoom quoi. chapeau à 2STV. jaajëf jaajëf. voilà chers téléspectateurs gis ngeen membre du jury yi présenté donc taal dañuy def lu rek daal di enchaîner li nga première épreuve bi ça sera hein, le freestyle le premier passage rap bien sûr donc on dañuy woo ki nga xamante ne moom Snake mu ñoo defar le freestyle 60 secondes. Aïcha le nouveau son. yeah yo yaa um, Snake dub MC from Calmer, from Kër by far. yeah what up. waaw daaw maa ngi woon ci compétition bi waaw ren tamit waaw maa ngi ci quoi incha allah waaw ñaan yàlla rek yàlla def xam nga lu gën quoi incha allah ko def sax tamit yaa ma gën a xam lan moo tax mu ñëwaat parce que gars yi fi nekk yëpp maa leen mën waaw comme li ma wax rek waaw tamit wane sama bopp rek parce que ñun moom si hip hop lañ nekk anyway yaa ma gën a xam ah niveau yi daal loolu niveau yi daal bokkul quoi. bu daaw bi ak bu ren bi niveau yi bokkul waaw job la rek fii moom job mooy fay quoi loo job rek waaw li li nga liggéey rek ngay fayeeku yaa ngi gën a ah, kon xanaa brique yi kon deux million la parce man am na benn brique ma denc gaale jël naa ko ba pare waaw mooy loolu fin gaale ba pare kon ñëw def mission bi rek moo si des quoi yaa ngi gën a xam sa saat bi nga ñoo di sa gëmu ñu la yàgg nañ la rap ñu ngi niveau international li ko ndaw gi tudde naa ko tiddi ko mag gi tudde naa cam dogo acc ko mbataa na li ngeen ñoo di ma mën naa ko e ah, nee na la santuma caare si nekk de kenn du ko baare wax ma li nga bëgg dëgg ma jox la ba may la takk dënn sambal sa nënd si nekk fëgg na dënn xeetu flow MC yi fi nekk dee ba ënn uh-huh. du tama tuxu fi laale nga tàcc ma tëcc la booy da nga ba jaaxan ma xëcc la accu ko mba tako niveau géej la kër mbay fa laa jógee ne mano marché de munoo ma rango de yorol bu dangote tey rek nga nara de naroo fi corote maa leen fi sikote ñëw leen sama gote fi maa fi coro góor ni may góor a góor ba si avec le haut, là Turnover. <laughs> Dave on the track, première épreuve. Freestyle. Aïcha. Yeah. yeah, Dave on the track. I'm Ten when I'm back. Dëkk Diamaguène. dama bokk Vibe Radio. concours yeah nag ma ko ci ma am yàlla fi dal yeah nice ah cool concours bi nice parce que comme que bokk nañ ci ci participer rek chill quoi xam nga leneen lu lu ci des dañuy ñëw wane lu ñu job après waaw yaa mën a boo ko waxee bàyyi xam nga génn lu bari quoi. Ah, waaw tamit loolu côté Coco Sing kooku gën na yokk ma dugg ji ko et puis nekkul un million wala wala dara mais man dama yàgg bëgg rap te ñëw xam di ci gagné ay expérience loolu loolu la mais pour man bénéfice la man quoi loolu moo tax ma bokk ci loolu rek yow bi. sama galal aw yóbbu ba jàmm gën yee fu ginaar ne kook laa jog ànd ak samay jumtuwaay dootuma fëgg ñuy gànt yor naa lu mën na jaay wala waay. jant bi nëbb sa faay ba bi deewu mbégte fenk jéggi doon mbégte si gaay yi ama real dog këf sa xalima daa di yóbbu sa real top toog sa xalifa daa di yee da jarul polémique lu cool tanaas nekk na koronique kii du zooru nit lokoo bi si ñu na poromique xam nga sama nem woowee ma fling yaa ngi doox ak go from tout prime ladies and gentlemen su mil sa kab bi léegi faama men yaa ni nga para ngeen ku siggi sàkka jabbi orloge taral gem enoom yi ma jox la cent francs seeni xërëm tey nga gis cent franc héritage u sorcier faxas bali na ku sol gilet yaa ngi lokk right man maay coach NBA woo nga gaw la ci géew bul fa bañ taas mbax li may def yëngal na réew sa bla bla kaj man ma boroset sa góor a tet zig a pompet seen gémmiñ a xeeñ ba ku leen boros sax too leen set seen géem laay pédicure manicure bu fekkee day wasin tey développer Balanga ngaa laax jaay jox sa bopp sàkka mi dara égal nak sa bopp kaay dekk sa kopp di nga dar sa bopp ki lay jox ay roy mayen ba nga fàtte sa bopp kooka tànd on enchaîne hein? dañuy dem ci li nga xamante ne la deuxième épreuve ça sera quoi alors c'est la rime du jury donc euh... Euh, Snake, sans plus tarder. Nous avons euh, Benrim, Ben Rim, membre euh, du jury, nous avons Djok, Djibi Dari, Khalad Ben Rim. Ah. Aïcho Djibi Snake, d'abord, Rim, c'est Gate, Gate quoi. Gate. 60 secondes rim géej snake let's go gaaw mu ngi may jox nim de rim ci géej rab laay def kon nag maa ngi nii di liggéey indi rab booy lii de dafa xaw a géey mais bàyyi ma yëngal ko ni nga def dem def sama liggéey ndax loolu rek ma waar maa ngi nii di def booy xolo damay ay maa ngi nii soo may woo soo xamul sama tournée ma ay noonu la fay demee ay ana mbay géey fay maa ngi nii di rab rab damay fay ay dama dugg si géej mënu ma ndox kon foog ma jàng fay rab laay def oh lii mooy sama liggéey maa ngi nii di rab rap eh, kon fii fii dara du fi géey noonu la fay demee anyway booy xoola ngay sàcc samay réew ew ew shit yaa may jox rim si géey maa ngi nii di rap di ko def comme mel ni benn ndey géey soppi naa la ndey géey fii du fu jeex tey noonu la fay deme anyway may aw mbay ngay fay nga may aw tey noonu la fay demee eh, anyway ma koy teg ngay reetaan ci fay eh anyway di ko teg damay laaf sax samay laaf booy di fay anyway yeah, yeah. <laughs> Dave van de track Rime du Jury, uh, maar ook CDB. wat? Doe je over dit? Uitje? Yeah, yes. Maar je toch gewoon niet, maar we joh maar ben rim timbot. def képp microphone dalay cabaxal dóor la mbot maa ngi nii toog gaay may seetaan def képp microphone xam nga li may teg dafa jot yee yes yee maa ngi taxaw nii di ko freestyle def képp microphone dalay jox beneen not yee de lasta maa ngi nii di kaw di teg beneen technique def képp microphone xam nga beneen rim lay génnee mi ma jox maaw mi ma jox benn rim ci mbot def képp microphone nan la booy li nga def di jot li nga teg di jotul man maa ngi nii di ko teg def fro yaa ngi nii maaw mi ma jox benn rim ci mboot maa ngi teg ay raam di la ci mboot yee ya li ma teg dafa jot yow maa ngi nii xam nga man sama bës dafa jot affaire bi dama koy jël xam nga dafa jot maa ngi nii di la kott di la jox ay rim yee mboot baa ngi nii ni maa ngi nii di la jox ay rim yu gën a kawe comme mboot dama lay mboot teg la mbil man in a time jaajëf jaajëf

ils prennent du temps pour mener des di ils prennent du temps pour mener a jël texte. Mhm. mais du tico ni du ñu jox la dara ni, instant présent C'est pas du tout facile de faire. ko. Mhm. moi t'as tax bu ñu ko am deux ou trois rimes. Mhm. da ngay comprendre ni xam nañ ni def nañ quoi. et puis da nga leen accepter lool parce que c'est pas évident. parce que improviser juste euh, xam bagage intellectuel légal, c'est pas ce xam ni dafa nekk.

ay ca it dem yeah KMF what's up Golden Gang Hi. Yo, listen up, man, nigga, don't wanna blow Arab. Sama jama sande ma jala to zambaram dem bula koma sera magi ji so garam rai gi numo gale fe ji sa program nigga raat fa le we daga bugu ñu sama to dum be du ko be ta du rai ta sama loxo mo gëna dis ba to rai ta na ba ba sa ko ma si jabu way mbay nigga way mbay kay dinga viré dem aw mbay ngay bay kon nag cene si cene toli ma bege etablay deme sara bu cune kenn ko bege mala gën a yeme gën a sa gang tine du yang ci rap ma di sa aar si trap ene de loo fogewul joxe tudd di leen si kode mel ni bépp kode solo la njaboot kabi nga ma kole boot nga ma xole ñëwa di nga cole xolo ni nga jode nolu la ma teel naa la ewi naa la orat ma la dirigé ndax ma la colonisé ni may jàppisé nolu lay décapité nu mu maag lay sant depuis boobu maye mënoo fexe ba ñëw ma romb li ma mën i dama keroog yàgg képp di bomb yaa ngi ci jënd numéro dafa di it di bomb yàgg naa ci erreur mere wera boy rap zero boy rap a gën a doy nga pare enjoy dama wane sama bopp rek gars yu egg si wala li nga dem acca maa ngi ni yegg si di booster ñëpp ma dom seen rap de good boy oh shit nigga am li dee boy yeah. tey xam naa ne nee xam naa ne euh, mbalax maanaam moom mooy Mbéjé Faye. <laughs> loolu dafa leer loolu dafa leer loolu gis naa loolu. loolu dafa leer on the track. Euh, on the track. yeah. that's right. l'islam du terrorists. yeah. oh yeah. yeah. listen. Yeah. ni benn njuuma sariya wala sariyaax rey moom daganul luy terroriste wax ma luy terroriste da nga jël deret def ko léegi bénéfice da nga bëgg a yow jommal wala sariyaax rey moom daganul je luy terroriste wax ma luy terroriste da nga jël deret

l'islam l'islam l'islam trois premières épreuves donc ils ont tout donné euh, Snake from by Fall Mr Dave on the from jàmm gën ñu tàccuwaat bu baax baax parce que loolu am solo ah. waaw way nañu am solo way nañu am solo. di gis naa ci ay messages yoo xamante ne c'est à méditer. waaw mhm. vraiment am na solo donc nag dañuy def lu dul enchaîner ak membre du jury ñu daal di wax li nga xamante ne mooy seen suggestion wala conseil ou bien avis loo xamante ne war nañu ko mën a yokkal suñu ay candidats on commence par. Euh, Jibi daal Jibi. waaw euh, déjà en fait euh, li gën a li li gën a métti mooy li Rex doon expliqué léegi par rapport ak freestyle bi. Hmm.

am nañu am nañu expérience boo déggoo sax di nga xam ne exactement yàgg nañu rap sama xamul ndax dañu doon bokk ci ay cypher wala ay affaire demee noonu mais nekkuñu ay gan quoi ci hip hop bi. est-ce que di leen mm. ku nekk c'est-à-dire premier boy bi Snack. par mm-hmm. rapport ak prestation. Euh, dafa li nga wax dafa il est il est plus trap. ok.

waaw waaw bon man bu rek parce que je suis tout à fait d'accord avec avec euh, Djibi. Mhm. c'est vrai que pour les même pour les même ça va être un peu compliqué mhm. parce que mhm. affaire de goût la rek. c'est-à-dire que soit on est plus classique soit on est plus. Euh, euh actuel euh, mais mais ñoom ñaar en tout cas ku si nekk maîtriser nga ce ce, ce bord. quoi. donc voilà ce serait juste une question de ban goût kan moo la gën comme comme euh, comme comme style en fait quoi en plus c'est normal hein, parce que ñaari rappeur compétition Le ku ci nekk da ngay joxe lingam lingam li nga mené ak donc c'est très intéressant en tout cas am ñaari style yu wuute. <laughs> comme que ko Djibi doon waxé affaire c'est vrai que c'est compliqué man man par exemple mm-hmm. euh, suñ ko jëlee ci man man je sais pas trop faire du freestyle mm-hmm. je préfère me poser écrire écrire bind li may def xam lan lay def quoi mm-hmm. donc am na ñoo mais c'est-à-dire nit ki mën na aay en freestyle te boo ko tegalee bit du ci mën a posé am na ñoo xam ne buñ te wala tegalee bit ñu bind bi ñuy bind kii freestyle du ci mën dara ku nekk ak sa fort voilà ku nekk ak sa kii am na nag ñu mën bi mën bëre dëgg la waaw mmh. ah, genre rex bi rex rek la ba man aperçu bi ma si am mooy cest comme ni ko gars waxee boo gisee premier épreuve bi freestyle si vide bi boo xool ñoom ñaar rawante dara mmh. parce que vide bi foofu artiste bi li muy liggéey amul benn contrainte bit bu koy wax ni nii nga si war a tegee wala dara automatiquement ni mu ko bindee gàllem texte bi ni mu ko bindee da koy ñëw dóoree noonu kon foofu day am plus de assurance plus de aisance li muy def parce que d'abord préparé wu na ni mu koy tegee xam na ko mais boo ko tegalee bit boobu day am beneen contrainte bu ñëw mooy cest di dire mélodie bu mu war a adapté texte am ci kaw lool mhm. kon boo xool seen premier couplet freestyle ñoom ñaar Les fois, boo jugé peut-être mën nga jugé par rapport aux technicité bien dans le par rapport au bind bi aussi mhm. mais gis nañ que ñaar yëpp am nañ écriture bu nice mhm. li ñuy wax c'est audible leer Amener mhm. am na diction comprendre technicité bi voilà, xool peut-être ce nekk mon moo bindam mon gars a hmm. en plus buy teg da ngay sentir plus de aisance li def comprendre alors par rapport ak dev dev da ngay gis bi bit bi tegoo peut-être da ngay gis parfois muy xaw a xàcc parfois mi ngi calculer ndax li muy war a teg fii la koy teg ndax fi ni mu ko bindee nii la mm-hmm. artistes yi foofu nañuy rawantee mm-hmm. c'est-à-dire la musique musique bi léegi moom moo évolué ba léegi da nga war adapter aussi n'importe quel style de musique mm-hmm. ñu ñoon tegal leen fi ben mbalax wala ñu tegal leen wala dara war nañ ko war nañ si mën a mm-hmm. Mm-hmm. parce que da nga war a wu artiste waro tëju si ben style légui fa la artiste di rawee ku la gëna a mën ci si beat bu nekk comme mu nekk trap comme mu nekk classique comme mu nekk leneen ku gëna flexible dal flexible flexibilité lañuy sétlu parce que jury bi loolu la soxla gis dafa war a soxla gis ni kii rap ni mom il est à l'aise amul ben contrainte amul calcul buy am ci maanam fofu la nak

Mandukoba. Hello, my ladies in the house tonight. You will let Mandumakoba. Mandumakoba. Oh, my ladies. I just have a guy. What about? You Hello, my ladies in the house tonight. You will let Mandumakoba. Jaje Fai. Merci. Coco, my DJ Axe. moom de du koba. moom nee du koba. <laughs> original. <laughs> nee dal du koba Vibe Radio 3 it's still going down donc ça c'était euh, la partie euh, rap la première partie ñu dem euh, Dougouti, deuxième partie bi. ouais, on enchaîne avec le chant. tia ñu tàcc len bu baax On baax. donc ki dit « njëkk woo mu ngi première épreuve elle nous vient de Kermassar bien sûr la très gentille Sousaba salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp man la Sosaba Sissoko from Kër Massar. alors euh, déjà bu ñu ne concours c'est pour wane talent bi nga am euh, donc euh, bi ma gisee euh, bi LNS bi je m' étais dit que chance la si man pour ma ñëw wane sama talent et euh, am tamit lu ma si jëlee parce que loolu mooy concours même bu fekkee gagné woo ko am na loo ci mën a déjà pour wane sama talent. après tamit pour gagner. alors sama euh, manager moo déjà moo gis ñu def ko ci page Vibe Radio mu ne ma am na benn concours bu Vibe Radio comme LNS 1 bi dem bu daaw bi autant pour moi après euh, si la ma waxee pour ma inscrire ci si la inscrire après lañ ma woo audition. bon déjà ñoo bokkoon euh, bi ñuy il est bien il chante bien macha allah après que le meilleur gagne waaw je pense il faut toujours être optimiste. <laughs> bon déjà way euh, ku nekk ak fi nga mënee. c'est pas que fii laa lii laa ko ëppalee wala lële laa ko je crois en moi te je crois en ma voix tamit donc. ah, ça. 60 secondes. Yeah, Ferrari, salary. Hey, eh. if you love me, you go buy me Ferrari. Uh ah. -huh. If you like me, you go pay me salary. Hey, eh. so cool with me, put my money, they could come. Uh ah. -huh. Napu no before mauto, no be mauto, oh. oh, eh. Napu no before mauto, oh, ah. No be mauto, eh. Hey, fize, ye mi ala day. My panty, eh, in my baggy, eh. The udi shingwaka. If you want to pardon me well, Mr. Man, you a ginger. Gucci pretty rose, the gun in a pim pim neko. There we go, we sit away for nothing. Oh. If you love me, you go buy me Ferrari. Ah. If you like me, you go pay me salary. Hey. Eh. So cool with me, put my money, they cook come. Ah. ah. dara loolu baax na lu baax lu baax na on enchaîne avec Ferta Aïcha Aïcha Aïcha salaamaaleykum commune Ferta from Fouta yëpp ça veut dire que musique sama passion la de bu ñu ooyee dara te mu nekk mu bokk ci sa man ci sama yëngu-yëngu c'est normal ma ñëw uyu si si dans l'affaire yooyu dama am benn bro bu mooy joobal bu tudd Asil moom moo doon suivre genre affaire yi ak mu tegal ma ko sama intéressé ma ma teew bokk ci. bëgg naa lépp bëgg naa ci am expérience bëgg naa xaalis bëgg naa visibilité tout a j'aime bien beaucoup de choses yeneen beaucoup de choses à faire avec petit yow amoon nay guerrier amoon nay cuun aussi amoon na ñu nga xamante ne vraiment j'avais j'avais pas aimé ce qu'il faisait quoi dama doon gis ne on dirait que aar hmm, boobu nu ñu doon oote nekkul woon si ñoom ko avec ñi nga xamante ne mais am na aussi ñi nga xamante ni respect quoi respecté naa lu ñuy def naa gañe laa bëgg def te loolu laa gëm incha allah yaa ma tete yaay ma di la gi na wóor man ba ma doone gone yaa ma doon tegtal yaay boy man mënuma la fàtte yaay yow yaa ma tette yaay ma di la sore gi na wóor man ba ma doone gone yaa doon tegtal yaay booy ak kanjureelu metti na mama yaayi booy bul musa foog ne fàtte na mama yaayi booy benn doom munul fay sa yaay Iya, ji'gen mo ñu kulen ku sagan yaa ngi jum yaay boy munu mala la yaay yo ya ma tete yaay ma di la sorgina gina man ba ma doone gone ya ma doon tegtal yaay boy le nouveau yaram daw na yaram daw na macha allah bu ñu waxee yaay rek ma si man

Yeah, li la la. soxlo may riiti ak xalam dal ndax way wi laaj na li soko ko ba mu baax daglel ko fo ne ci man fo ne ci man mam mam fo ne ci man ye li yalla la fo ne ci man fo ne ci man maam mam fo ne ci man ye li yalla la

attention. ma ne yee yee bëgg la ma ne woo woo bëgg naa la yee yee bëgg woo woo bëgg naa la yaay sama kaañe xeeñ si ma man yaay sama kaañe xeeñ sa ma xeeñee ma ti solli su ah. li ma ti sere doo morom bu bañ ma yenni ma ne woo bëgg naa ma ne yéeyée bëgg naa la yaay sama kaañe xeeñ foo ma ti solli

Cheikh Lo. ah Cheikh Cheikh Lo waaw Cheikh Ah bon, bon, ah kani Kani Stop. Quand tu Aïe ça va yi affaire yi garaaw na de. man du ma ci wax de du ma ci wax. Ah! comme yaa ngi ci show du ma ci wax. nañu dem tegu ci biir. Aïcha troisième dernier beat de la Labo 36 ça va. troisième épreuve il faut tout donner. bưng gừng lên đàn phi Wedding girl, yo fat finger in the bucket don't burn my canoe. So I could hold my nyata away. vội đang lên xa kỳ phái trong sẽ xưa mơ hoa yêu sau sẽ trong sẽ xưa mơ hoa yêu sau sẽ nhìn ngờ áo ngân yêu bơ nghi gù nè khi phố pha lê thù tình girl yêu phát thênh girl yên a bucket dome changer, tout monde royaume changer. Le nouveau son. T'as na Wow, message bien. Amna, amna solo amna solo mhm. troisième et dernière épreuve euh, Mr. Ferta il faut tout donner let's go. le nouveau son. better than them. And you love me, you me. I know that you mean, sabu yo mindewe. Ne moji min bada, kala kunjita, jomam mda hani min Kala kokata, as a joma miznam, e eh, odo. Aduna Tini bibi jomam histamin Odo Aduna eh, eh, eh. The better sabe me te que better party You're man de nati Kulol ala sati All to be arefai Ayinungu namdamde wai God phone God matai say Ya love me Ya for me kwa tagi mimi sabu yomindewe nemoji min bada kala kunyida joma mda kwa hani min dada yeah. kala kokata ase joma misnam e odo aduna tini mimi joma mismen e odo aduna ah, ah, yeah. Ligon after that, one for the mercy. Oh, puting itu madalar biji gitu jangku maaf Ligon after a round for the my boy Puting itu madalar biji gitu jangku maaf Antuka Antuka Mandah Daizat Tarna Nomor fogon isa maa ngi côté Jamaïque yooyu daal doy no wa, doy no wa. Wa comme lu mu leen expliqué artiste yi dañu bëri facette ici

da ngay jàpp ne ay genre Myriam Makeba côté boobu la lay yóbbu. comprendre nga. donc da ngay da ngay da ngay. da ngay tukki. génn Sénégal wër tuuti ci sous région bi après ñu andiwaat la Jolof yóbbu la carrément Fuladu Haalpulaar nga. sans passeport voilà sans day day jaxasoo te ku ci nekk li ngay def da nga koo maîtriser. macha allah da nga ko maîtriser instant yi ñu toll nii musique bi fu mu toll. Mhm. ñoom ñaar dañuy dem rek dañuy bokk dañuy adapté directement. Mhm.

bon après da ngay remarquer un peu peut-être euh, stress bi ñuy am ak mm-hmm. mais c'est très normal en tant qu'artiste même da ngay dem ba niveau il balaa ngay yëg mm-hmm. su c'est pas c'est pas facile nga am jury en face de toi ak public boo xam déjà je sens que public bi ils sont pas ils mënuñu réagir. Mm-hmm. déedéet kay ils sont interdits de. <laughs> déedéet kay eh public tàcc leen seen am ngeen solo hein? am ngeen solo ah. c'est compliqué.

boo tegee benn programme wala nga teg benn projet da ngay ñaan chaque année muy évoluer mhm. te bii nii ku seetaan euh, le nouveau son bu daaw seetaan bu ren di nga xam ni am na évolution si noo koy xamee boo xoolee première fois bi njëkkee ñëw fële à la rajo mhm. avant coaching bi ku si nekk amoon na benn lacune benn faiblesse bu nekkoon si yow mhm. comprendre boo xool ko teg su saba moom faiblesse am mooy doon lan mooy ñemewul woonam baatam am na baat bu rock baat bu diis bu am grave bu am présence mais soo ñemewul sa baat loolu yëpp puissance boobu booy woy du génn comprendre kon sa baat day dissoudre ci sa biir comprendre nit ñi lay seetaan dinañ am impression ni yow am na loo joxewul yow sa bopp doo ko seetlu mais nit ñi dañ koy seetlu comprendre parce que musique tension la dafa am foo xam da nga war a way slow am foo xam da nga war a gëdd. léegi gëdd boobu boo ko deful rek musique boobu da ngay flop instant boobu noonu loolu ki lay seetaan moo koy gis quoi. moom bi nga ko coaché si côté boobu da ngay gis ni depuis keroog à la rajo. bi mu wooyee da ngay sentir ni voilà puissance bi mi ngi. joxe évolution bi évolution mi ngi fi parce que loolu la ñuy ñaan si artiste nga xam lan mooy sa lacune nga mun ko job mhm. tey tamit prestation tey bi wane nañu fii amul benn faille si côté puissance puissance vocale bi génn na. amna précision mom amna tamit lu rare ci artiste moy day chanter juste mhm. chanter juste lu koy def suis nga am sa voix maîtriser ko musique buñ la comme niko wax premier chant chant bi way ñu Miriam Makeba c'est pas facile mhm. parce que ñom gam ñuy ak ñuy ak mhm. comprendre dam musique pour elle s'en est bien sortie côté nice Ferta Ferta limu amone mo limu am moy lu bëri ci artiste yi am nek fi amuñu ko moy dafa am confiance en soi mm. bu ñëw di way da nga xamni ki xamna xam def xamna suñu jëm xamna na def comprendre nga maîtriser na voix c'est important juste mon problème mo moo doon terminaison yi mm. terminaison mélodie bu yëkëté parfois yow da ngay xaar mu daaneel mais peut-être ak technique am da koy daaneele feneen en plus voix bi day xaw a trembler som loolu la doon def autant mm. mais tey gis nga ni prestation am tey nickel quoi franchement comme ni ñu ko ñuy waxee amul kenn kuy taxaw wax ni kii moom mën kii si ay pourcentage yu bëri déedéet juste appréciation moom moo leen di départager appréciation ak feeling mhm. parce que musique feeling la mun nga ñëw woy ay genre style Miriam Makeba ba bi du ko barre mu may la zéro alors ko foofu ku xam musique boobu dina xam ni lii c'est difficile à faire kon dama leen di gàcce ngaalaama xam ni def

ay ca sama gaay sarta d'honneur ah ale mone yakato bina mone yakato bina ale mone yakato yamba ay ca ay ca ale mone yakato bina yakato bina ale mone yakato yamba nanga anangene fetile excellent begelen, anangena fetile yeah yeah excellent begele yeah bina yakato bina to bina yeah hey yo Car you on the blow, not in the wood, then you bugger with it in the fucking lap in the wood. Them did blow on the time in the one in the palm in the one and they get job in the wood. Yo, quicker when they let you do what's his take it the dawn, Take it fucking nigga, they will live on the bit of dawn. I'm going to take bigger time, live like it off the road, not to wait before they get the date. Ha, nigga, nigga, nigga. Ça va. You have the freedom, les petits freedom. Hey. You have the freedom, yeah. Al-Nayin al-Mutar. 안나그녀 막거이 안나그녀 못하 안나그녀 막거이 거물 같아 생물에 어디다이 Hey! New day flip freedom Lip with your freedom yeah. New day flip freedom Lip lip with your freedom yeah, New day flip freedom Lip lip with your freedom yeah, New day flip freedom Lip lip with your freedom Yeah. salaamaaleykum nuyu na ma leen ku si nekk ak sa tur ak sa sant ba sa nit mam di jaaroon si nekk dog MC teg na ko yu dox xëccoo kéeg bi sa dërin bi gën a defa yi ak lewal ba mu gën a kawe bu ñu ne nii ni nga cuunee nii defum ne nii jaxase menacé ngay kiin nen kër ma fa laa jógee ne marsu de bu noo ma yorol bu tango de tere nga naro de naro fi jooro de maanen fi sigo de joolen sama go de wowo Bertha Aïcha አነንገን የብስለ ከጅለን አንዳክማን አናንገነ የንጉለን የን ፈችለን ገን አንዳክማን አለሞነ ያካቱቢናዬ ያካቱቢና አለሞነ ያካቶየምባዬ yakatoyemba ala mone yakatubina ye mone yakatoyamba ye mone yakatubina toyamba to salama be Anagene, yes, Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. pay my rent, God the way. Voilà, Deuxième finale de phase de poule. ce soir, on va savoir qui va rencontrer Big Demba de Jamagan pour le rap en demi-finale et qui va prendre le ticket de demi-finale pour le chant pour rencontrer Bayrush de Casamance. Donc, c'est une membre de jury depuis 5, jury 007 parce que merci. comme je l'ai dit rek. ayca bismillah, yéen a ngi passe à la euh, délibération. fierté la su quoi Moi, c'est-à-dire nga ñëw nekk un jury C'est ay artistes qui maîtriser les ñuy def. Mhm. dañ leen mettre devant l'embarras du choix ngay obligé parce que booy xool bii passé nii bu lii fi am tay musu fi am. Hmm? sérieux parce que ñom ñaar fi calcul non rabbi mom dama koy ñëwee à part man rab bi chaque jour dañ may rusloo. déedéet kay <laughs> bi pas. non chaque fois way kat ñoo leen di gagner déedéet kay mais nice quoi bu ñëwee ci way bi. wa mais ñu ñu ñëw ci rab bi ba pare dañu délibéré rab doog a. délibéré ñu doon ñu rab bi lay démé wa rab bi donc euh, délibération. Mhm. Ah, ñu jëlat ko ah. ñu jëlaat ko wa ok donc euh, sans plus tarder bien sûr la délibération rap euh, voilà pour le jury finale de de poule 2. Euh, bisimilah yéen la ñuy déglu. bon di di di di di di kontaan si initiative bi di kontaan si ñaari artistes yi. Mhm. comprendre muy Snake ak Dave on the track. Mhm. mu nekk ay artistes yoo xam ni boo xool ba xool joxe nañ lépp lu ñu amoon. Mhm. ay millimètres près rek moo leen départagé. booy seet li leen départagé du lenn lu dul aisance. ak fluidité si beat. loolu rek moo leen départagé. Dave on the track sax bi muy joué last kiyom bi bi muy dem da ngay boo ko xoolee nga il a été pas satisfait, il est il a il est pas satisfait si lui mu def. comprendre parce que ñun xamante ne artiste da ngay lire si li muy def ak du genre parce que calcul mon mon sonal artiste calcul mon sonal artiste su bit tegoo rek calcul bi ngay def lu mon mon les lay génn loo bit bi mooy tax sa diction du leer. Mhm. mooy tax tamit en plus ngay sa baat di tëju ngay stressé mhm. comprendre mais thème bu nice la def thème ni la am monde bi par rapport thème actualité mais musique avant tout ngay thème ay samba ay demba nit ki lay musique bi dafa neex. exactement base musique. Mhm. message boo siy jàllale loo siy mënti wax yaa xam ngay kaas yaa xam ngay woy mhm. faut le faire si musique bu douce bu neex lu mhm. audible. loolu la snack réussir mooy c'est-à-dire moom dafa am fluidité ci beat dafay mën tegu ci beat nice relax def li muy def mhm. loolu lañ soxla waxoon naa leen ko ci coaching bi nee naa mhm. nekk leen à l'aise mhm. boo nekkee à l'aise jur bi ci boppam day épaté wu ci li ngay def parce que day gis ni kii maîtriser ni muy def bul ñëw di taxaw téye maag di calculer loolu daf lay sonal côté boobu la ko snack gagné que vainqueur bi snack la à ne félicitations félicitations snack ñu

loolu am solo la loolu solo la kon boog euh, première waaw première ah. demi-finale ça sera bien sûr Big Demba euh, et Snake. Snake loolu mooy première demi-finale. félicitations. Euh, mhm. Aïcha lan moo ah. waay bi xanaa champ bi waaw xam nga li des yow sax xam nga li des. <laughs> bon waay bi problème la ñuy indil comme je te l'ai dit. lii mosu fi am mooy c'est-à-dire ñoom ñaar dañoo tolloo point. Mhm boo xool Snake ak qui à l'unanimité ñun trois ñëpp Snake mo gagné ci jury bi. ok mhm. comprendre parce que départage bi yomone mon, parce que ñun ñep ñoo bokul ñu yëg même plan bi ngay gis quoi. Mhm. ok mais ñom ñaar dafa metti woon. parce que comme nous mu koy wax rek juste affaire de feeling la ak affaire yu sew mo leen départage lo xamni yow tu peux pas l'expliquer ça veut mhm. pas dire ki mo gëna ay est mo gëna ki non non du lool mais feeling la par rapport peut-être ak choix musical yi ñuy def. peut-être ak choix son yu ñu tann comme ay cover. comprendre

bi ngeen waxtaan ngeen. waxtaan nañ. waaw li ko li indi kii bi. polémique bi penchant bi mhm. mooy deux jurys ñoo tànn kenn benn jury moo tànn kenn. Mhm. mooy c'est-à-dire deux jurys ñoo jàpp ni. Mhm. Sousaba moo gagné. benn jury mais comme je l'ai dit rek du affaire de talent. du affaire de talent never never. félicitations. gay ñoom ñaar a jox exemple boo si jëloon kenn ñu nekk ñoom ñaar nga soxla leen si musique boo jëlee kenn mu woy si benn musique noo def di nga soxla keneen si beneen musique parce que ñaari style yu différent la mm-hmm. ok ñaari style yu différent pour man waruñu compétir mm-hmm. comprendre kon fii damay jàpp ni tey amul vainqueur si ñoom ñaar est-ce qu'on comprend fi continuer la kii exactement parce que cuisiner dans un da coin du job maîtriser ce style qui mhm. nekk si coin maîtriser style mhm. juste comme les ma koy wax li leen départage affaire de feeling à affaire de goût yu mais ça pas dire du talent du dara mhm. amul kenn ku si mën sa moom te dama leen di tàcc di leen bëggee si lool tàcc leen bu baax a ça va

Continue toujours, hein? yes bah, alors waaw ñu am actualité peut-être membre du jury. waaw Djibi bidali, yo, assemblée ci lan nga nekk. Euh, waaw li li rek wax la je pense que wax na lépp parce que c'était pas facile donc euh, comme li muy wax rek ah, lan la bu doon classe la. Mhm. dañ naan premier ex mhm. mais dafay am ku njëkk jël kayam am ku ci topp quoi. dafa leer dafa leer. <laughs> Euh, c'est actualité. c'est actualité assemblée ci lan nga nekk. man mii nii man ba ñu ngi ci préparé VSD bi déjà bu jege nii nii nii am ngi waajalaat encore grand théâtre bi ñu naroon a def pour euh, départ u Paris bi yóbbu ko place de l'Obélisque di waajal Paris tamit ak euh, mouvement Pop Galsen bi yëpp di préparer sorti album Da Brains Femme Africa boo xam ne album bi yëpp. pour jigéen ci jigen lañ ci wax. Uh-huh. pour kañ non estay baxaw momo té parce que pare nañu pratiquement pare nañu. baxaw lu jot ñu ak événement yu yi di jall ni yëpp. foog ñu uh-huh. baye ba yëpp jall ñu japp ben bes né tel jour mooy la album bi di gën mais allah pare nañ ko def nañ vidéo yi ñu wara def inshallah donc lolo ci dess après sinon di. Euh, waajalaat match rapport contre mbala fi jege na soreetul. est-ce que voilà ak suñu partenaire yi wa deuxième stv di ko diko wa diko waajalaa. ak yu bëri yoo xam ne bon mënu ma wax lépp ah, de façon ñu ngi tëju di joob rek amul amul amul jeexal amul ah, euh, parewuñu di talal loxo gaa yëpp ah, xeebuñu kenn aussi ne ñëpp ñëw ñuy saafo gën a bien mais yow da ñëw tabaxal ñu benn affaire bu bu neex rek nit ñi commencé di ko kii jékki-jékki gis tuuti Maodo daw maa ngi fii sax mais xam nga comme j'ai plusieurs casquettes, c'est un peu compliqué des fois. Parce que sa doit réseau quoi. <laughs> Ah, ah, c'est déjà une chose. Mais en fait, comme je, suis en ce moment, euh, ces derniers temps par exemple, j'ai fait beaucoup de réalisations de vidéos. Mhm. Les booy def loolu nous ko vraiment di di mhm. bouger di qui quoi ah. et puis y avait y j'ai fait une pause aussi euh, pour nekk en création tamit pour euh, un nouvel album Wow. en fait y y a deux projets Il y a un, street album que je suis en train de faire qui va être plus électro plus urbain machin Bon, je me fii ak été bi lay donc album bu may maye la mais en Tu ah, boobu lay bokk ah wala ah ci boobu lay bokk voilà voilà la ñuy <laughs> ah il ak lay doon lay Il y a ce que j'appelle mon deuxième album du mhm. may préparé ça va être plutôt à la fin de l'année ou début de l'année prochaine une euh, donc il y a un très grand guitariste qui s'appelle Hervé Sambre qui est un guitariste sénégalais mhm. donc euh, avec qui je vais travailler dessus pour ramener mon de de réalisation album Bob. donc c'est un album qui va me prendre beaucoup de temps parce que c'est beaucoup de recherches à et puis sinon il y a une petite tournée qui s'organise pour moi pour le mois de mai

jaay c'est sama gars yi jaay Rafetna. rafet Nous euh, lu le def la semaine prochaine n'est-ce pas donc euh, le nouveau son il est demain hein, c'est les pros nous xam le lu Bon, def euh, booy tamit Ken de donc félicitations tamit semaine prochaine nous avons un candidat ci la parce que mhm. concours compétition bi ci bi la ak télé effectivement ci nous bi ñu lundi et mardi. Mhm. ci Tal Rek Show émission de Vibe Radio. 20h mhm. 21h. ci télé bi avons phase de poulie. 17h30 euh, ci 2STV mardi et mercredi. Mhm. vendredi comme tey euh, ñu ngi am euh, finale de poule. Mhm. n'est-ce pas donc mardi prochain. 2STV 17h30 quand la ñuy nous ñu nar am ki nga xamante ne que mooy Talla mu voilà <laughs> l'ol programme pour champ bi ñu am League Flow contre bien sûr que ñu wax de Demo de Thiaroye Azure pour euh, mercredi prochain. 17h30. Wow. Rabbi. ñu nar avec ak euh, Badzo. Mhm. Akan, Bira. The Lyrical. Opener. L'Allemagne <laughs> pour Rabbi prochain bi Morty Gislin qui revient euh, euh LNS 1 qui revient pour le LNS 2 Morty Gislin le Congolais qui va affronter bien sûr Rema de Mbao qui joue à la guitare n'est-ce pas. voilà. Convoque. Donc, mec, ta gueule. Le nouveau son. N'est-ce pas? Donc, première demi-finale. Euh, Big Big Demba de Diamagun, qui va rencontrer Snake de by euh, pour le rap et pour le chant. On aura... Euh, le, la gagnante de ce soir, Soussaba, qui va les retrouver, Bayrush de Casamance. C'est le nouveau son de cette émission. Le nouveau son. DJ Ox, ñu ngi lay jaajëfal ñu ngi c'est suñu membre du jury ñuy jaajëfal ñu naan seen sama co-présentatrice bi <laughs> man sama bopp di euh, vendredi prochain pour euh, beneen édition. adieu tëj ko. voilà chers téléspectateurs je vous ne wax na ah, comme ni ma waxee ne que Djibi waxoon na vrai. donc on vous donne rendez-vous semaine prochaine Inch'Allah. ça sera bien sûr sur la DZTV, la première chaîne privée du Sénégal surtout gardez surtout le sourire à la pêche. À la semaine prochaine.